jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur 7TV ñu ngi leen di nuyu bu sell asalaam wa wa barakaatu nuyu bil islam asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakaatu ginnaaw bañ sante yàlla julli sonente bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur te ñaanal mi jàmm kilifa diine yeeg kilifa aade ñu nekk soptaal bi suñu borom fëgg seen bopp waaye ñu nekk sa prison bi suñu borom génne leen bañ ba leen fa delloo ngi fii si màggal Touba édition ñu nekk suñu bàyyi suñu kër lépp muy kër sëriñ maam Thierno uh, mu Cheikh aw Balla Mbacke ba tax na tey dama dajeek njabootam uh, kenn muy kenn si kër gi uh, muy sëñ Mouhidine Mbacke dama koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur 7TV ndax tey bëgg naa leen indi waxtaan wu am solo si diggante maam Thierno ak ku tedd ki moom Cheikh Ahmadou Bamba ndax day faral lu bëree bëri bëri bëri nit ñi di ko di dégg si maam Thierno tax amaana dañ ko umpale lool lool lool nag su ma toogee ak sëtam wala ma toog kenn si ñi nga xam ne ñooy doomam dinañ leen indil ay leeral yu baree bëri bëri bëri si njabootu maam Thierno ba tax na suñ Mouhidine dama koy bàyyi mu nuyoog téléspectateur 7TV yi di doog a si waxtaan bi suñ Mouhidine ñu ngi lay nuyu. wa rahmatulahi taala leen di delloo nuyoo bu baax di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw fii ci kër sunu sëriñ alaaji maam Thierno bu sëriñ Cheikh Awa Balla moom borom daaru muxti kon bu ngeen ñëwee bëgg a laaj ay laaj ci borom daaru muxti ñëw fii euh, kon loolu lu jaadu la kon ñu nuyu waa télé bépp di leen delloo nuyoo di leen dalal jàmm ci màggal bi ñaanal leen màggalu jàmm ak salaam jërëjëf euh, dégg ngeen kàddu yi dama koy laaj question bu njëkk rek mooy euh, maam nu Birahim lan la bokk dégg dégg dëgg borom Touba. asalaamaaleykum euh, waaw maam Thierno Birahim li mu bokk ak sëñ Touba bari na lool ndax mooy ñoo bokk wenn waajur wu góor sëñ Mamor Anta Sali ñu tudd Mouhamad ibnu Habiballah Mouhamad moom la wax. maam Mor Anta Sali Habibullah mooy maam Balla mooy maamam ibnu maam maaram kon ñoo bokk wenn waajur wu góor waaye dañoo bokkaat tam ci wàlluk ndey ndax sëriñ Touba soxna jaaratu moo ko meññ ñu soxna Mariama Busa borom daaru Muti maam Cerno soxna Faati Isa moo ko meññ ñoom ñaar ñooñu nag soxna jaara ak soxna Faati Isa seen ñaari yaay ñoo bokk benn baay soxna jaara soxna astawaalu mbàkki la yaayam tudd soxna faatisa soxna absa mbàkki la yaayam tudd soxna ak soxna absa ñoo bokk kenn ku leen meññ muy euh, doomi maam maaram sa sa euh, soxna buso mu maam maaram moom moo leen moo leen meññi Ahmadu soxna Buso moom maaram moom maam maaram mooy waajuru soxna Absa Waalo mooy waajuru soxna ab Mbàkke soxna Absa jur jaara soxna Absa Mbàkke jur soxna Faati Isa Jóob ñu yaayu borom daaru kon lal na ni ñoo bokk waajuru góor ñoo bokk waajuru jigéen waaw ñuy faral di dégg sëriñ bi euh, borom daaru dañuy faral di dégg ñu bari naan moo nekkoon loxooy ndeyjooru sëriñ bi tey amaana loolu suñ su doon wax lan nga ñu si mën a wax. waaw loolu wér la borom daaru lu bari looy wax ci moom da ngay dellu rek ci mbindum sëriñ bi loolu sëriñ bee ko bind. sëriñ bi bind na ko wax na ko borom daaru muti mooy loxo ndeyjooram am na leetar bu mu ko yónnee am ca wooyu bu ko wax isa ataaka. adudi kitaabi fa karrimil kitaaba bil mataab maanaa ni ko yow mii sama loxo nday joor bu la sama leetar bi dikkalee na nga ko teral ci tuub dellu ci yàlla sa borom nee wow way woowu bi mu ñëwee mag ñi werante nañ ci waaye ku ñuy wax sëñ Omar Guèye ci mag ñi njëkk ànd sëñ bi la moo ko laaj sëñ bi ni ko fere yi dañuy werante ci li nga wax ci bayit wi ni ko ndax dangaa jublu ni lettre bi nga yónnee Ceerno sa loxo ndeyjoor la wala jëmmi Ceerno nga jublu ni mooy sa loxo ndeyjoor mu ni leen laa jublu mooy sama loxo ndeyjoor kon loolu mbindum sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa waxaat na ko beneen naar bu mu doon yabal ci borom daaru ñu ko Ibrahima adudiyal ayman seer na ma la yebal mooy sama loxol ndeyjoor Sëñ Tuubaa wax na ko bind na ko kon lool du lu kenn di werante tey suñu ñëwaat si taxawaayu maam Thierno si ndar ndax eh, dañuy faral di dégg ñu ne maam Thierno bokk bokk na si ñi jiitu eh, dem dem sa ndar tey taxawaayu maam Thierno si si dem demub géej gi. waaw demu géej gi loolu tam lu wér la ba sëñ bi sancee Mbàkke Baari ba ñu tàmbali koo jaxase ak tubaab yi e, bari na ay xew-xew yu fa bari yu fa xew ci Mbàkke Baari mooy Mbàkke Jolof fi sëñ bi sancoon xam ni fa la jóge dem Ndar foofa biñ demee ba yëf yi bari sëñ bi da ko yónni yónni borom daaru ni ko ñëwal demal ma Ndar ndax sama digg tubaab yi rambaaj gi bari na bi boroom daaru demee ndar fekk na booba tubaab bi wax nañ commandant la Clerc mu war a jël si sëñ bi ànd ak quartier boo xam ne dañoo war a ñëw njàkk pàkki baari pour jàpp sëñ bi bi borom daaru demee ndar ay xew-xew yu bari la bi mu fexe ba gis gouverneur ndax dañ ko naroon a téye ci bunt ba mu am coow gouverneur ni leen bàyyi leen ko mu ñëw mu mu ni ko yow yaa jóge ci Ahmadou Bamba mu ni ko waaw mu ni ko loolu mu ni ko maay rakkam waaye Ceerno Ibrahima Faati nee na jox ko leetar bi ko sëñ bi jox mais booba muy tubaab yi duñ nangoo joxlanteeg nit ku ñuul direct boo koy jox leetar dañuy jël palaat nga teg ci leetar bi tubaab bi door koo jël nee na bi ñu defee loolu borom daaru ni ko nag waxuma woon dama sa loxo ak loxoom boo ko mënee jël boo ko mënul jël ma delloo ko ko baab bi jël leetar bi mu jàngee bi mu ni ko yabaloon naa commande naa le pour mu jàpp si ko waaye comme lii nga wax bu fekkee yow man ngaa garanti ni boo demee sëñ bi dana wuy si danaa leen tell garaam fu mu leen fekk ñu toog fa ba waxtu yu delsi bu sëñ bi ñëwut nag ñu door a jàll si mbàkki baari mu ne ko bu ma demee dana ñëw moo tax ñooñu ñu télégramme kii comment naa la clair ñu xaar sëñ bi jeewal bari na lu ca xew ñu ko doon interpréter ka ko njëkkoon di interpréter nga xam ne daa bokkoon si ñu doon jaxase sëñ bi ak tubaab yi Eh, entrepreneur balaa jugut ndax borom daar day gis bu waxee rek tubaab bi gën a mer borom daar ni ko sama entrepreneur bi dama koy tuumaal dama bëggoon ñu wutal ma beneen ndax xam naa li may wax waxula ko mu door koo andil beneen entrepreneur mais mooy dut sekk bun moxtaar mu door koo wax tubaab bi nag bi ko borom daaru leerale la kanam gi door a leer ma ni ko xam nañ ko gëm naa la wax ndax yow xam naa li ñu waxal sëñ bi ñu ngi ci préparé guerre bu doon looloo doo ñëw yow ndax ñun am nañ suñu renseignement généraux yow ci lieutenant yi gën a foor nga bokk kon bu bu nekkoon ci guerre du la yebal euh, mu waxante tubaab bi mu ni ko bu ma demee sëñ bi dana ñëw euh, sëñ bi boole kook interprète bu njëkk boobu ñu war a kii am na yuñ ca dox waaye borom daaru yuñ demee dañ ko bëggoon a réeral ndax kooku génnee rek da ko ni mënumaa dem te reer jotut te booba taalaguñ reer di ko kii bañ bañ bañ bañ war a dem nag borom daaru dogu ci dem mu dogoo mu boole ko waajoo xam ne da ko ni boo génnee ba dox tuuti rek dewal bàyyi ko waaye xam nga ñoom dañoo bari woon xam-xam dañoo jàngoon ilmu nujoom ni ñoo astronomie ci mu teg tegtalu ci biddiw yi ba ñëw Mbàkke Baari ci fajar bi muy egsi fekk na sëñ bi takk bagaas yépp ba ba jekk nga xam ne moom rek la doon xaar mu nuyoog sëriñ bi sëriñ bi ni ko dara mënuma suñ borom jox na ma ndigal ci naa dem te la borom borom sëñ Tuubaa daara jógee foofu nag Mbàkke Baari ñëw jeewal tase faak commandant la kaleer kon loolu mooy yoon yi nga xam ne borom daaru moo njëkk a dem sëñ bi door a dem Ndar. mooy soxna Fatou Issa. soxna Fatou Issa noonu ma la ko waxee rek dafay mbokkum sëriñ bi ah soxna ab soxna ak moom Ahmadou soxna Bousso moom maaram. maam Mor Anta Sali itam maam Balla ko jur moom maam Maaram mel ni sëriñ bi euh, soxna jaara ñi nekkaloon ñëpp dañ di ay bokk di ay xarit mag da doon xaritub soxna jaara yàlla defal ko tawféex tam mu teel a xam sëñ bi booba sëñ bi euh, màggeegul ci saayir yàlla defal ko ci tawféex lool mu teel a xam sëñ bi teel koo gëm gëm sëriñ Touba lool fonk ko xam nga soxna jaara dafa teel a nelaw ci exil boobu leen nga xam ne Maba Jaxu moo leen yóbbu woon Saalum foofu la soxna jaara des ci poroxaan looloo tax mu des fa maam Morant nekkee Saalum boobu sëñ bi doonagul mag waaye mu batale woon na sëñ bi ak njabootam soxna Faati sa moom soxna jaara soxna jaara nag soxna faati sa nag féete sëñ bi fa ko soxna jaara waroon a féete fonk ko lool ki ko toppatoo lool gëm ko lool lu ne mu daj ko ci moom mm, musta tàggoog moom musta tàggoog moom ba am na ci mbiram lu gën a yéewi mooy bi sëñ bi nekkee ci géej gi xam ne am na ñetti at walla lu ko ëpp yoo xam ne tubaab bi dañoo dagg communication kenn xamul ci sëñ bi dara dañu bind benn lettre yónnee ko wax ne sëñ bi nekkatu fi lettre boobu bañ ko andee maam Mor Jaara mooy kilifa ñu ne jàng ko bari na ay coow lool nga xam ne borom daar bu mu ci jógee sax dafa am tàngoor ñëw tëju nanguwut a jàngale nanguwut a def dara dañu wax ko soxna Fatou Issa soxna Fatou Issa ñëw ñu ko naar la ko daan wax loo jëlee ci seen penc ma xanaa neexul mu nettali ko muy ah, loolu day dara sa mag ju baax ja moo ni ma won loo gën a ragal ma ni ko bàmmeel mu ne la xanaa bu ma la ci defee sa xel dal ma ni ko waaw mu ne ma maa lay dugal ci bàmmeel te sëñ Tuubaa lu mu wax moog alxuraan a lam waxoon wóor na ma ni dana am mu moo tax ñu ni ba ñëpp dégg nañ soxna Faati sa mooy ki gën a gëm sëñ bi nañu na koy wax nañu mooy njëkk gëm sëñ bi moo ko gën a gëm ci murid yi ndax boobu ñëpp jaaxle nañ waaye moo leen dellu si ko man sëñ Tuubaa ma wax lii te sëñ Tuubaa lu mu wax dana am kon kooku mooy soxna Faati sa seq naag sëñ bi nag leen relation kenn kenn mënta wax lépp kenn mënta wax lépp ba loolu sëñ bi dem na ci géej gi ba ñibbisi dem gànnaar ba ñibbisi ma ne Ceyeen Jolof ca la ko woo door a woolu ñu ko wooloon dani xam naa la moo waxoon rek la may defal damay faatu ji waaw mu faatu sëñ bi defal ko la mu waxoon denc ko kooku Ceyeen Jolof barit wax nañ ni sëñ bi ci boobu wax na ni keroog tey jii li ñuy wax waajur tey laa ko door a ñàkk kon loolu rek doy na daraja soxna Faati sa jëw si hmm. gàttal mën nañoo wax ni euh, soxna Faati waajur la woon ci ci sëriñ bi. waaw waajur la ndax soxna su waajuram la moog waajuram ñoo bokk bi waajuram nelawee tam moo ko ñu ko gënoon di toppatoo la bokk moo ko doon toppatoo. féeteeg moom jébbal ko boppam jébbal ko njabootam nga xam nga borom daar moom mu gànnee àdduna rek la ko maam Mor jébbal sëñ Tuubaa dalee jàng matee dal jàngit tam am na fu mu dem tuuti la ko ba sëñ ko jébbal ko sëñ Tuubaa ko dalal jàng jàngal ko alxuraan jàngal ko xam-xam mooy koo xam ne moom daraam génnu sëñ Tuubaa produit yu la daal moom amul kenn ko ko ci rax moom borom Daaru Muxti moo soxna Fatou Issa ñoo ko àndoon. dañuy ñëwaat tuuti ginnaaw ba ñu leeralee soxna Fatou mooy kan dañuy ñëwaat si borom daaru tey ginnaaw ba sëriñ bi demee euh, borom daaru dañ ko bàyyi woon ak njabootu sëriñ Tubaa gi nan la nekkee woon ak njabootu sëriñ Tubaa waaw loolu sëriñ bi ci boppam moo ko bàyyee njaboot gi sama njaboot gi dénk naa leen góor ak jigéen ba muy jóge foofu ci mbàkki baari da ko ni fii kat waxuma la nga toog fi booba ñëw xam na ni moom lu ko xas digal loola moom lay def boo fi mënee nekk <coughs> nga toog fi boo fi mën a nekk foo mën a nekk njaboot gi yor leen rek nga def loolu moo tax mu yor njabootu Sëñ Tuubaa gi fonk leen leen teral jàngal leen ñuy jàngale alxuraan suñ di jàngale alxuraan moom muy jàngale xam-xam di toppatoo seen lépp seen dara du manqué mais bi nawet bi jeexee la jóge foofu ñëw Mbàkke Bawol Mbàkke mooy fi mu dëkku cosaan moom lañ njëkk a am ci Kajoor ak Bawol Maam Moor jaaro mii seen mag ñoom ñëpp mi ngi fi waaye boobu tam euh, nekk bi jëkk jafe na lool xam moom am nga tubaab yi suñu kenn mu a kuñ jàpp mu dellu si te ku am lante ñoom ñëpp dañ lay ragal moo tax am na nekk na mbàkki ab diir sañc na fi ay sanc am na fu mu njëkk a sañc sanc ba tàng lool mu jógewaat fa sanc lu ñuy wax guy nguraa guy nguraa suñ borom kër gi sëñ Seexaw Bàll foofu la ganee àdduna ñu fii rek ci diggante feek Mbàkke Bawol moo jógee nii jaar euh, tëli bi jàdd wuti boo jógee ci rond-point bi foofu la guy Ngora nekk foofu la nekk ba jógee fa sanc daar ma naan gii ci tuuba moom daa borom daanut waaye fu mën a nekk jabootu sëñ Touba gi da leen di beral seen kees doom bi di leen toppatoo di topp wut ñu toppatoo yére sëñ bi di toppatoo waa kër sëñ bi sëriñ Saliou Mbacke ci moom ne wax na ni am na guddi goo xam ni yëf ya tar na ba am sàq la wut mu daana negut dugal ci waa kër sëñ bi tëdd ci biti di leen di leen kii ba bët set kon lu ne daj na ko ci diggante boobu juróom-ñaari at yi yi sëñ bi ne ci géej gi nekk Gabon mos a tàggoog njabootu sëñ bi ak yeneen kilifa yi ci daan jàppale waaw sëñ bi ci diggante boobu jàngal na leen ñi ci xam boobu sëñ bi ñu ngi fi bàyyi bariwul sëñ Modou sëñ Fallou ak sëñ Baara sëñ Modou Moustapha moom fekk na sëñ bi gamoo moom daaru yónnee na mokkal na bind kaamil yónnee sëñ Fallou booba mooy mokkal na waaye jamono yooyu la sëñ bi ñëw moo leen jàngal alxuraan jàngal leen xam-xam am ni ko ba sëñ Fallou Mbàkke ci moom waxal na ko boppam ni maak sëñ Mudu Saafa mag suñ bàyyi ci yar na danoo jàngal ban ni ar mu yar nu ban ni nër mu yeenu ban ni jaar ñu dégg euh, sëriñ bi ba mu jógee ba mu jógee si tukkeem bi moom Cheikh Ahmed ba mu jógee si tukkeem bi ñëw na indaale sëriñ waaye sëriñ bi da koo séddale waaye ñoo dégg ñu ne euh, joxul borom daaru daanaka da ko mujjee jox waaw mujjee mujjante jox boobu noonu lan lay sabab. bi sëñ bi ñëwee wàccee Dakar ba ñëw Ndar woolu na borom daaru wuy ji ko mu waxtaan moom yi mu bëgg a waxtaanal boobu si borom daaru ngi fii daaru mën naan ci Touba mu delsiwaat mu delsee nag ci la sëñ bi di wàcc ndànk xam jaar luga jaar dëkk yooyu ñëw sànnoo si tombe koor gi ti fa toog ba ko ba wori ba ñu ba ca ñaareel fan la fa jóge jaar dëkk yu bari ñoom ba kër Masamba Xari jaar ci biir mbaakool ba ñëw Daaru solaam ñu ñëwee Daaru solaam maam Cheikh Anta ganale ko ngan goo xam ne gu yéeme la ay bis koo xam ne lu ne def nañ ko ca ngan waaye ba ngan nga jeexeet daaru mën naan fi borom daaru nekkoon fi la sëñ bi ñibbisi fi la sëñ bi ñibbisi waaw fi la fi la sëñ bi kër borom daaru fi la sëñ bi ñibbisi moom moom daaru manaan gi la sëñ bi ñibbisi woon te bi ko borom daaru sañ boobu sëñ baa nga ca géej gi waaye ci kër gu mag gi ci pénc mi la ñibbisi bi borom daaru ñëw bi ñëwee rek borom daaru daa dem ci kër dongo ya daan ne borom dëkk bi ñëw na bàyyee ko kër gi kon kooku xam nga moom loolu sëriñ nag xam nga nit ñi bokkuñu ay ay ay kii nit ñi lu ne la wax waaye waaye ay sëriñ sëriñ jëm moom xam nga mooy ay téereeg waaw ay barkeeloog yooyu yaakaar naa lool kenn appelé wu ci boroom daaru <laughs> kenn ku nekk ak nag ak ak ak lam la jox wàllu yu ci bari sëñ Musaa Ka mi taarixal bi woy na ko waaw waaye borom daaru moom fi nekk ngan daaru salaam fu fu man xum xum bu ko sëñ bi wowut du dem moom bu ko sëñ bi wo foog daal fu muy jóg sëñ bee koy woo wala mu yónni ko waaye loolu loolu day ne ci ndigal rek ba jot leneen ndigal loolu loolu moo tax xam naa ñuy wax waaye ba mu jógee Daaru Salaam la ngan ngay ne aw bis xam ne lu ne def nañ ko fa manaan gii la ñibbisi fi la toog ba yoonu gànnaar wi ñëw koy jógewaat dem gànnaar hmm. ñu bàyyi la nga tëj jotaa bi xam naa ni waxtu bi léegi mu dem te am na am nga si yitte yoo nekk waaye laataa loolu sa waajur góor lañuy laaj muy maam maam Thierno nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñëw si këram gi fekk si leen si. Ah, <laughs> loolu de moom xam naa dama xaw a jafe li wax sa waajur moom <laughs> ak nit da ko dut fekkee waaye boobu dëgg yàlla ku jàmbaar la. sëñ maam Thierno mooy doomu sëñ Cheikh Balla ju mag moo doon xalifaam sëñ Cheikh Balla jógee 1976 ba léegi ah, dëgg yàlla lépp lu sëriñ Cheikh Balla defoon yokk na ko dëkk bu mu amoon taxawal na ko def fa lépp lu dëkk di soxla muy courant muy forage. muy téléphone lépp lu nit di soxla dëkk sëñ Seexu Balla yëpp def na ko fu ne def na fa jàkk yu bari def na ko jumaa kon euh, ku jàmbaare la te lu jiitu loolu dunduk sëñ Seexu Balla ku fottiku woon liggéeyal sëñ Seexu Balla ba am ngërëmam ba àdduna bépp seere ko doomi sëriñ Tuubaa yu mu fekkanteel yëpp tam am na seen ngërëm tàmbalee ko ca sëñ Fàllu booba du woon mag saayir ñuy carrière jumaa ji biñ koy gas ci ndokk am na ci yoon woo xam ne dafa ànd ak mbooloo mu bari ne ca carrière ba toj ba def fa kàmb gu rëy a rëy def fa jal bu rëy mais sëñ tu sëñ fàllu jóge na tuubaa ba ñëw fa ko Ceerno sa njàmbaar gi fekk na ma Touba kon kooku woo doomi sëñ Tuubaa fi nekkaat yëpp mel na sëñ Abdu Lahat sëñ Abdu Xaadir Saaliw sëñ Joy bu sëñ Murtala ku ne am na sa ngërëm jaxasoo na yow li ko sëñ Seexu Balla bàyyi woon tam lépp yokk na ko yokk na taxawu na dëkk yépp def fa ay jumaa ñuy julli def fa ay daara taxawu leen ci lépp lu ñu aajowoo lépp lu mbooloo mi di aajowoo loolu daal xam naa doy na ci gàttal <laughs> waaye si mu nekkoon sëriñ sëriñ Mouhidine Mbacke ibnu Maam Balla Mbacke eh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax xanaa Mbacke eh, dañ lay bàyyi rek nga nga ñaanal mbooloo mi te nga tàggatoo ak lan ngay wax soppe yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan 7TV si màggal gi. Mm-hmm. ah xanaa ñaanal ñëpp rek màggalug jàmm ak xéewal. màggal gi comme mooy suñ bis moo xam ne nun murit yëpp moom lañ am lu am murit am ci bis bii nga ko am sëñ Tuubaa ak cantuk boppam doy ko ci képp koo xam ne mbégam sa mbég la nanga ko ci sant yàlla kon yàlla na li ci jiitu mooy yàlla na yàlla nangu sunu màggal sëñtuwaa Tuubaa nangul nu ko boole ñu ci ñim nangu seenu màggal te defal nu màggaluk jàmm ak xéewal te àggale nawet bi ci réew mi te def jàmm ci réew mi ak xéewal ñëpp xéewal yu daj ñëpp ak jàmm mën mën a jaamu yàlla ñu ngi leen di sant tam yéen bu dell leen sant bu baax a baax ci taxawaay bi waaw li ngeen def borom daaru Muxti ku mat a gëstu la ndax kenn mënta wax ci yoon wi wax ju wér te tuddoo ko ndax mooy koo xam ne mës sa tàggoog sëñ Tuubaa ko bind moom looy wax ci moom man ngaa dellu ci mbindum sëñ Sëñ Tuubaa bind ñaar yoo xam ne doy na ibrahima lësi lam yu xaalif nii fii si xari fi wala fi ki bëri yi mooy ku mësta tàggook man bi muy gone ba bi muy mag waxit ni lam yu faariq ni mooy mësta tàggook man lam yu xaalif ni mooy mësta juuyoog man mais mësta tàggoog moom ci ndawam ba ci magam mësta juuyoog moom ci magam ndawam ba ci magam kooku nag ku bëgg a wax histoire bu wér faaw nga boole ko ci hmm. te lu bare bare bare moom la ko sëñ Tuubaa noonu taxawaloo waaye mu féete woon sëñ Tuubaa ànd moom si taxawu ko taxawu njaboot gi ak fépp lépp loo xam ne sëñ bi mënu ko ndax ak jaamu yàlla am ak kiyam mu taxaw ci kon kooku mooy borom daanu si kon kooku ku war di waxtaane la gëstu gëstu bu wér di ci wax wax ju wér joo xam ni ju am solo la kon mu ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu waa yëpp di ñëpp daal di leen sant di leen gërëm ci taxawaay bi ngeen am asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñun nag la ñuy jiital mooy dañuy tuub tuub gi ñuy tuub mooy tuub toogaay bi ñu toogaay ci kaw ndax wax dëgg yàlla ñun ay bi lañ. te waruñoo toogandoog suñuy sëriñ si kaw waaye nag dañ see am ndigal si moom moo tax eh, ñu toog si kaw ndax émission bi moo ko laaj ñu ngi siy tuub bu baax di ko tuubal murit yëpp di santaan nag ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa su nekk fii 7TV li leen ko waxee si njëlbeen wax rek si sànq si suba nee nañ leen dugg nañ Tuuba dafa seen ne ñoo ànd ak yéen tey après ak avant lépp dinañ leen ànd ak yéen incha allah rabbi si màggal gi bu soobee Serigne bu soobee Serigne Touba dinañ si dinañ dugg fépp nag incha allah rabbi di sant nag suñu bàyyi suñu xarit mi nga xam ne moo ñu dalal muy sëñ Modou Ablaye sëñ Modou nga xam ne moom moo nekk uh, rakkam ñu ngi koy siyaare bu baax Mbacke Baal di ko ñaanal moom mu yàgg fi lool te ànd ak wér nga xam ne wax dëgg yàlla xéwal yëpp ban na ba ñu ñëwee si kër gi ba tey wax dëgg yàlla lépp dara manqué wut mi ñuy toppatoo bu baax ñu koy sant bu baax Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal équipe bu 7TV bi yëpp lépp lu ñuy wut si màggal gi eh, suñu borom defal ñu ko ngeen ñaanal suñu njiit nag bu baax muy soxna May ndax dégg ñàkkul ni dégg ngeen jamono yi lii xew si presse bi ngeen ñaanal ko bu baax baax baax ndax jigéen ju mën góor la te li mu def nii si tele bi jamono jii si Touba nekk na xaalis bu takkoo takku takku Ah, ngeen ñaanal ko bu baax ak eh, teleem bi lim si bëgg moo ko xam borom bi defal ko bu baax di sant ñëpp di sant mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yeeg képp xam ne mu ngi doon bàyyi xel 7TV rek ñu ngi koy yëpp moom moo ko jox koy sant bu baax ko jox wàccuwaay bu baax di nuyu sama caméraman bu eh, ba lii yëpp am ñu koy siyaare bu baax ak équipe technique bi nekk si ginnaaw yëpp ñoom semu ñoom jibi ñi leen di bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen jox dig daje feneen beneen allah rabbi seen beneen numéro asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.